بك ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi topp Almouridiya TV ñu leen di euh, nuyu ku ci nekk ci turam ak santam fu mu mënti nekk di topp euh, seen télévision IPTV euh, fii ci Sénégal tey nag ñu daal di tàbbiwaat ci benn ci ëttu soxna yi nga xamante ni moom lañ leen di amal fii ci seen télévision Euh, comme ni ñu leen ko amale woon nag ci bii weesu ak ñaar ci suñuy invité tey jiit fas yéene nañoo doxalewaat noonu ànd ci nag ak soxna Bintu Amar jiite moom mooy euh, benn ci suñuy invité Euh, soxna Maam Diarra Seck it euh, daal di féetee ci wàllug euh, càmmoñ gi ñoom nag xam naa ni neex a présenté incha allah ndax ñenn lañu ci suñuy naataango fii ci Almouridiya TV ci journal bi diggante ku ci nekk ak poste bi nga occupé incha allah dinañu ci ñëw ci biir bu buñ leen di présenté incha allah. imam Abdoulahat Niang comme ni mu àndee woon ak ñun ci émission bi euh, weesoot noonu la fas yéenee tey euh, toggaat ci plateau bi ngir euh, jubbantil ñu ñun soxna yi ginnaaw bu ñu nab nabee ba noppi waaye nag ngir dolli ñu ci li nga xamante ni mooy thème yi ñuy indi ci biir ëttu soxna yi soxna Ndeye Rouba Ndiaye daan nag di taxawee émission bi ñu koy jaajëfal bu baax ci teew gi nga xamante ni moom la teew di ko ñaanal nag mu dellu siwaat ak jàmm ginnaaw repos bi fii ci liggéey bi ci bërëb bi fii ci ëttu soxna yi incha allah ëttu soxna yi nag ni ñu ko waxee tey ñu fas yéene ci ànd ak thème bi nga xamante ni ñoo ngi ko duppee ràññeeku soxna yi ci sàkku xam-xam ngir jariñ askan wi tey nag loolu mooy thème bi nga xamante ni moom la ñu war a waxtaanee ci biir ëttu soxna yi benn ci suñu invité yi di soxna Bintu Amar soxna Bintu Amar nag di responsable marketing ak communication bu Almouridiya TV euh, ay am njàngam nag jëm ci euh, communication ak marketing. Euh, soxna Diarra Seck moom it di spécialiste de la production audiovisuelle service production bu Almouridiya TV xam-xamam nag ci wàllu njàng jëm ci commerce international. ginnaaw nag euh, bi ñu leen euh, xamaleek euh, suñu invité yi nga xamante ni ñoom la ñu am tey fii ci biir ëttu soxna yi soxna Bintu Amath Djité moom la ñuy njëkk nuyu soxna Bintu ñoom lay ziar bu wér. ñu delloo ziar aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala maa ngi lay ziar soxna Diarra maa ngi lay ziar tamit di am mbégte àndaat ak yéen ci plateau ëttu soxna yi. ñu koy jaajëfal bu baax moom soxna Bintu Amar daal di nag euh, ziyaarit euh, soxna maam Diarra Seck ñoo ngi lay ziyaar bu baax soxna Diarra aousubillah bisimillah inna walillah soxna Code ñu ngi lay delloo ziyaar di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñi sa fo seetaan euh, seen télévision Al Mouridiyyah TV ak ñiy déglu tamit Al Mouridiyyah FM ñu ngi leen nuyu baax di kontaan ci invitation bi di nuyu aussi public bi toog fi yëpp ak oustaz ñu koy ziyaar bu baax ñooñu nag ñooy suñuy invité waaye comme ni ñu leen ko annoncé woon nag ci ëttu soxna yi dañu wut nag ay rubrique yu yees ci biir rubrique yooyu nag dañu ci def tey li ñuy woowee info santé info santé nag eh, ki ñu koy amal di Ndeye Marème Diop eh, mi ngi ci eh, public bi incha allah dina ñëw fii ci plateau bi ginnaaw bu ñu tegee élément bi nga xamante ni moom la ñu wutali ji woon dana ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo portrait dañu koy def ci émission bi tey dinañ leen ci defal benn bu surprise ci kanam tuuti dañu koy bokk daal di teewlu waaye balaa boobu ñu daal di ziar nag imaam Abdoul Ahad Niang ñu lay ziar bu baax imaam. waaw euh, jëf soxna si ñu ngi lay nuyu baax di nuyu ñi nga bokkal ci toog ci plateau bi ñu incha allah di rafetlu jotaay bi incha allah di rafet ci ne incha allah jotaay bi xam-xam dana fi balle jërë ngeen jëf. ñu koy jaajëfal bu baax moom imam Abdoul Ahad Niang doon nag modérateur émission bi daal di nag jël suñu première question muy lan mooy xam-xam comme tey dañuy waxtaanee xam-xam. ak jigéen lan mooy xam-xam. jaajëf soxna Codou. question boobu nag yaakaar naa ne à mon niveau xaw naa diis trop lan mooy xam-xam waaye itam dañ ciy wax rek li nga xamante ne nii moom lañ ci xamal ku si néew xam mën nañ koo jàppee ne bokk na ci li taawu àdduna bokk na ci li nga xamante ne mooy tax àdduna jag àllaaxira jag suñ ko doon misaal mën nañ ne apport lay nekk ci nit ki cest à diir loo xamante ne day dollee ko ci nit ki waaye ak condition ko mu jug jëli ji ko jaar ci yoon woo nga xamante ne nii mooy tax mu xam lool li nga xamante ne moom la sàkkoo xam jaar ci loxo yi nga xamante ne nii dañ koy xamle ci lu wér su boobaa mën nañoo njort ne foofu nit mën na faa amee xam-xam ci kaw mu dem euh, sàkku ji ko ci kaw sàkku boobu itam ki nga xamante ne nii mën nañoo jàpp ne am na xam-xam dafa am lu ñuy woowee nattukaayu xam-xam tam aju ci ñaari mbir bi ci njëkk mooy dayob xam-xam bi bi ci topp mooy jëfe gi ndax euh, comme li ma lay wax rek xam-xam du lu ñuy làmb di ko daj wala lu ñuy xool di ko gis waaye nit ko da koy waxee mbaa mu jëfe ko ñu doog a mën a xam ne kii am na xam-xam jëm ko natt jëf jooju mu jëf payen saay nag dina am nuance parce que da ngay dégg ñu naan diw xam na lii kii diw xam na lee mais loolu mën nañ ko tuddee connaissance intrinsèque wala connaissance consciente loo xamante ni day judduwaale nit wala mu doon loo nga xamante ne nii daf koo fekkee dund ko wala mu ko ci télé wala mu nekk loo xamante ni da koo liir wala mu gis ko loolu mën nañu ko jàppee xam-xam waaye lu mu xam la balaa ñu ko mën a jàppee xam-xam mooy condition bi ma la wax léegi c'est-à-dire dafa jaar ci yoon wi nga xamante ne nii mooy tax nit ki dem sàkku ji xam-xam ak ci loxo yi nga xamante ne nii ñoom ñoo am euh, capacité restituer xam-xam maanaam capacité joxewaat xam-xam ba xamal ko kon tey mu jëf-jëf joo xamante ne nii te attesté justifier que ni kii am na xam-xam ci biir connaissance intrinsèque boobu des fois nga dégg nit naan kii dafa muus lu ñu naan kii dafa yeewu lu ñu naan kii xel mi dafa ñaw dinañ sax ba naan nit dafa dafa xarala loolu yëpp mën nañu jàpp ni xeetu xam la waaye ba tey bokkul ak xam-xam. kon daal xam-xam bu ko doon tënk. Mhm. diggante xam ak yor xam-xam du benn. du benn comme li ma la wax rek maanaam xam gi par exemple ma jox la benn misaal. Mhm. mën ngay seetaan télé par exemple. Mhm. seetaan journal télévisé lu ngi seetaan benn émission ñu lay wan ci lu mel ne ci lu mel ni virus Ebola par exemple. nga gis ci exemple bi nii nga xool ñu ne virus bi nii nga koy moytoo norme lii la boo defee lii ak lii ak lii suñu borom mën na ci musal et su boobaa mën nañoo jàpp na yow xam nga dara ci virus Ebola. parce que da koo seetaan wante xamoo amoo xam-xam virus Ebola c'est-à-dire le savoir bi ñuy wax ci virus ébola amuloo ko. te ki ko am mooy ki nga xamante ni maanaam jaar na ci daara ji dem na sàkku ji ko tarbiyoo na xam-xam boobu. ci wàllu médecine ak ci wàllu spécialité Ebola bañ ni kii kat il a savoir. en cette maladie sa à xam na li nga xamante ni moo di virus Ebola donc c'est toujours différent ak ki nga xamante ne nii mën nañ ne xam na ci dara bokkul ba tey te itam dafa am ñaar yoo da koo séq te mooy li nga xamante ne mooy def ba di jariñ mooy ay teggin ak jëf ci xam naa foofu dañ fi dellu siwaat na dama ci yor benn question bu nga xamante ne dinaa leen ko indil incha allah waaye nag ci gàttal soxna Bintu Amar xam-xam xam-xam lan lay jariñ ci gàttal waaw euh, soxna Dia daanaka tënkaat na ko ci biir ci biir yi wax xam-xam maanaam liñ ci jàpp mooy euh, lu ne nga xam rek na mu tëddee lu ne boo xamee maanaam na mu tëddee di nga xam la nga xamante ni moo cay safaan ak la nga xamante ni mooy ci lu jub la bu ko defee nag di nga mën a ràññee xam-xam mooy tax nit ki mën a am ak ràññee xam ne lii moo baax xam ne lii moo bon mu jël lu baax dëgmal ko bu fekkee loolu mooy maanaam mooy tànneefam mooy choix am léegi ci toppit maanaam bu fekkee dañoo maanaam ci li sëñ bi wax ci lim ñu jàngal boo jëlee maanaam tasawur subaan mi ngi ciy wax di leeral xam-xam lu muy jëriñ foofu maanaam mu ne xam-xam ñeent la lay jëriñ ba ci njëkk mooy nga fexe maanaam sàkku xam-xam ngir texe ak jub texe ak jub mu ne ba ci njëkk nag xam-xam mu lay jëriñ mooy da ngay génn ci réer dem ci ak xam loolu mooy ci point bi ci njëkk ba ca toppit mooy maanaam sa xam bi nga xam nga bañ cee nay nga laabire ci doomi aadama yi sa mbokku jullit yi nga bokk kook ñoom beneen mooy maanaam xam-xam saako xam doomu aadama mooy maanaam nga di ko jëfee na xam waxuñu rek nga xam ko denc ko waaye nga koy jëfee mu feeñ ci sa jëf ñu xam ne kii kat ci ay jëfam kii xam na la mu ko tënkee tamit ci Masaalikul Jinaan mooy xam-xam moom lenn lay jëriñ doomu aadama mu yokk ragal ragal yàlla te di nga gis ñu nga xamante ne yemu rek ci diina gi xëy na boo jàngee alxuraan xam la ca nekk yëpp di nga gën a xam sa borom nga gën a xam maanaam kennam nga nga kennal ko daal di koy ragal waaye nag dafa feeñ ba ci xam àdduna yi da nga gis tey médecin la muy jàng nga xamante ni maanaam doomu aadama la ko composé la ca nekk yëpp bu ca paree da ngay gis da nga gis ay médecin yu tuub sax ngir maanaam foofu nañ xamee seen borom kennam nga ak maanaam na muy bindee kon xam-xam daal ci gàttal soxna Cissé mën nañ jàpp ne rek maanaam dina da nga xam lu ne na mu tëddee nga xam la nga cay tànn ak la nga cay bàyyi ak yi sa jaamu yàlla maanaam gën a yokk gën ca ragal yàlla ñu jaajëfal euh, soxna Bintu Amar euh, ci euh, kàddu yooyu nga xamante ni dolli nga ko ci li nga xamante ni moom la soxna Diarra indi woon ci xam-xam waaye nag lu waral soxna war a sàkku xam-xam ndax ci jamono ba ñu koy xam ba tey dañuy jàpp ni sax góor ñi ñoo war a sàkku xam soxna yi nekk ci ginnaaw waaye ba fi mu ne bu ñu defee ay gëstu ba jamono di jamono ba tey amoon na ay soxna yu nga xamante ni dañoo taxawoon ci wàllu xam soxna maam jaaral lu waral soxna war a sàkku xam-xam. waaw bu ñu fàttaliko suñu borom dafa njëkk a wax ne moo njëkk wax ne xam leen ma pare soog may jàmm kon maanaam bu waxee loolu génnewu ci góor génnewu ci jigéen mooy li njëkk li ci topp mooy soxna comme ni nga ko waxee sàkku xam-xam ci thème bi da nga ne ràññeeku soxna ci sàkku xam-xam ngir jëriñu askan wi mhm. maanaam kon euh, mën nañ ne xam-xam amul benn arme bu gën a puissante wala benn euh, mën naam loxo yu gën a yell ay loxoy soxna parce que soxna mooy société soxna mooy askan soxna mooy àdduna mën nañ koo wax ndax ñi nga xamante ni ñoo yor àdduna ëllëg ci soxna lañuy jaar te itam soxna mooy ki nga xamante ni mooy njëkk a jàngal tout tànk wala mooy jaat yeneen i daara yi yeneen i école ki nga xamante ne nag dafa war a fondé société war njëkk a fondé famille tamit noyau bi maanaam moom mooy moom moo nekk au centre moom mi nekk au centre soo naree former ñi nga xamante ne ñoo yor askan wi ëllëg ak réew mi ëllëg dama jàpp ne c'est moom mu jàng jàngi nag bon mën nañ koo bañ a askane maanaam dewmul demul école wala jàngul lii jàngul physique jàngul chimie mën nañ ne amul xam-xam dafa am loo xamante ne ni moom la ñu woowee BABA c'est-à-dire loo xamante ne dafa basique mooy li science fondamentale li nga xamante ni alxuraan la tawxiid fiq tasawuf loolu c'est obligatoire que ci soxna ak ci góor yàlla ñu jàng ko mais li tax mu ëpp importance ci soxna mooy que ne daf koy restituer ay doomam daf koy restituer Euh, askanam daf koy restituer li nga xamante ne moom moo di société bi donc ci biir sàkku xam-xam boobu mën nañ koo bañ a jàppee rek maanaam lu muy dem jàng ci école ba bind ko ñëw toog mais xam-xam la boo xamante moom ma koy njëkk a ci biir këram digganteem ak boppam moom ci jëmi boppam ni muy jaamoo yàlla ak ni nga xamante noonu la war nekkee ak doomu aadama yi parce que boo dee vivre en société ak ñeneen danga war a rafetal ci biir rafetal boobu nag boo jàngul ba a xam as tuut doo mën nekk ak nit ñi muy benn sa digganteeg ñi nga xamante ne ñooy say waajur sa digganteeg ak sa borom kër ni nga ko war a tarbiyewoo ni nga ko war a jaamoo ak fa nga war a jaar ba am ngërëmam ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy say doom say tout tànk ni nga leen war a jàngale ba it fu ñu dem mën faa ne kon jàpp naa ne li tax soxna war a sàkku xam lu large la loo xamante ni mu ko étalé fii ak 24 mais li ma la tontu rek mooy soxna mooy noyau société te noyau boobu pour mu baax il mu xam il faut pour mu xam il faut mu jàng ba mën ko restituer ñi nga xamante ne moo di askanam mu mën a law ba ci société bi ndax bu xamee société bi baax bu ràññeetlee mën a xàmmee fu muy teg tànkam ak fu muy teg euh, loxoom ak li nga xamante ne noonu la koy jàngalee ay doomam su boobaa jàpp naa léppay baax. xam naa ñu ñu ñu jàll ci soxna Bintu soxna Bintu euh, soxna lan moo war a tax mu sàkku xam-xam lan moo war a tax soxna sàkku xam-xam ndax tey dañu ni ràññeeku soxna yi ci sàkku xam-xam ngir jariñ jariñ askan wi waaye nag soxna lan moo war a tax mu sàkku xam-xam. soxna maanaam li tax mu war a sàkku xam-xam bari na déjà rek boo xoolee sa thème sujet bi tey danga ne soxna ak xam-xam ci naka la maanaam la ci mën a jariñee askan bi déjà thème bi rek dafay firndeel ne problématique am na yaakaar na à mon avis parce que su nekkoon benn évidence bu nga xamante ni évidence pour ñëpp ñu xam ne soxna dafa waram a xam-xam du jariñ ci def thème tey bu thème bi amee rek mooy ça di dire que am na ñeen ñu jàpp ne soxna dafa lott ci am xam-xam wala dem sàkku ci xam-xam xëy na moo tax moo andi sujet bi tey te loolu euh, yàgg na ci xelu nit te doo doon ci wàllum xam ci fànn yu bëri dañoo mës a foog ne soxna xelam lott na ci xam loolu wala am loolu waaye nag boo xoolee maanaam dans l'histoire am na soxna yoo xamante ni maanaam jëf nañ jëf yoo xamante ni weddi nañ maanaam euh, yooyu nga ay préjugés dañ ko ci soxna boo jëlee kenn ci maanaam nekk maanaam soxna Aïcha moom da ngay gis maanaam xadis yu bëri da koo mokkaloon jàppoon ko ba saxaaba yi nga xamante ni dañoo jege woon rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñaan ñëw ba ci moom sax moom soxna Aïcha di ko laajaat mu leen koy waxaat di leen ko fàttali yooyu te maanaam soxna la woon nga jël ay ñoom umu salama nga xamante ni moom it jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam di doon ñëw fekk ko mu toog mu koy laaj di ko poser ay question yonent bi di ci tontu jullit yëpp di ci jëriñu góor yàlla yi di ci jëriñu te moonte ay góor yàlla ngi doon toog de waaye yonent bi umu salama la ko doon wax amaana suñu borom xëy na ci gémmiñam moom soxna ci kàddoom soxna la namoon jaalale xam-xam boobu noonu donc muy ay exemple yoo xamante ni astawa soxna astawaalo di ku ñu jege lool nga xamante ni moo jàngal soxna maam Jaara Buso ak soxna Anta Ndiaye nga xam ne ko maanaam xam jigéen dafa yàgg wane dans l'histoire ne war na koo mën am ba koy transmettre di ko jàngale waat li tax nag maanaam man dama jàpp ne soxna euh, soxna Codou dafa am ay statut yoo xam ne suñ borom da koo bindee bu ci nekk war a mën a tax mu mu war a sàkku xam-xam boo ci jëlee benn soxna balaa dara maanaam en tant que être humain soxna en tant que doomu aadama rek doomu aadama da war a sàkk am xam-xam suñu borom ci boppam moom moo wala xad karam naa bani aadama li mu bind yëpp maanaam doomu aadama moo ko ci gënal mu jël nag soxna ci biir maanaam ñu bind ñëpp defal ko ci maanaam benn jagle benn fa xam rek la ko defal soxna comme lañ ko yàgg a tuutal dans l'histoire ci ay xelu nit yu bëri moom waroon na ngir rek tax mu relever défi boobu war na leen man dama am xel war a sàkku ji xam war a jëf lu tax ngeen ne am naa xam-xam loolu war na tax bu loolu jàllee am beneen mbir maanaam bu am muy soxna maanaam nekk jullit soxna jullit nga xamante ni maanaam ci xadis boo déggee mën suñu borom dane ci xadis boog yoon salaay sam ñu ko wax maanaam soxna sàkku sàkku xam-xam ci góor di farata maanaam tamit ci jigéen ci ci ci jigéen talabul xilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima su loolu jàllee soxna amaa beneen statut bu sensible muy en tant que épouse maanaam en tant que soxna nekk ak borom këram dama mës a teewlu fekk dafa amoon benn table ronde bu amoon ci la veillu laylatu xadra hmm. am ay borom xam-xam yu mag yu fa teewoon am kenn ci ñoom sëñ Bouchra Samb ñu bari war nañ hmm. moom benn kàddu bu wax bu ma xawoon jaaxal lool mu ne soxna su amul fiq day desee set mu ne soxna su amul fiq day set dégg-dégg bi xawoon dis waaye boo xoolaatee da ngay xam ne dëgg la ndax soxna dafa bëri ay ruq-ruqaat dafa dafa nekk ko xamante nii maanaam xoola soxna si nga xamante nii nekk na ba nekk mag xamul ne maanaam tey su amee ngànt bu ci jógee maanaam ngant bi koy teree jàpp ak julli su ci jugee xamul na lay defee sangu farataam soxna si nga xamante ni maanaam am na borom kër xamul maanaam tamit sangu farata goo tamit nan ko war mën a defee soxna si nga xamante ni mi ngi ci kër jàngaluñ na ko tey booy fóot bala ngaa fóot sa yére balaa nga koy xool ci ndox om war ndoxu saa nga koo tooyal ba noppi maanaam faratul xëy maanaam yu simple yooyu noonu yu théâtre soxna xamu ko bu loolu jàllee beneen ñëwaat soxna en tant que yaay en tant que nga xamante ni al umu madrasatu ula la femme est la école mooy école bi njëkk ku ne école nag di nga ne xam-xam léegi nag li ñu war a lijjanti mooy na xam-xam ba ngay am xam-xam bu sell la wala xam ba du xam bu dul sell te li ci yéeme nag mooy soxna si bu dul bu sell la di nga gàllankoor di nga tooñ say doom ndax ci yow la ñuy roy ci yow la ñuy xool kon maanaam boo gisee ni ñu ko tënkee nii yépp day firneel ne soxna ala kulli moom bu fekkoon tey xam-xam maanaam dafa am kenn ku nekk am priorité moom la war a doon soxna lay doon kon maanaam farata ci moom mu ko kon daal maanaam bu ñu tënkee nii góor war a sàkkoo xam-xam ñu ni mel la soxna war a sàkkoo xam-xam xam naa loolu nag daf ñuy delloo si euh, ci lu fi euh, soxna Maam Faty waxoon ci émission bi jàll na mm-hmm. euh, soxna Maam Faty daf ñu nettali woon ci jamono jamonoy ku tedd ki la mm-hmm. nee nañ ndeysaan am nag ku mu joxe woon mu dem kër léegi bi mu ko joxee mu dem kër ñu toog ay jamono mu laajaat soxna si mu joxe woon mu dem kër. Mm-hmm. nee bi ñu ko bi ñu ko bi mu leen waxee mu ne ah moom du fa ju góor sax de xam naa ni dal na. am dugg na pour jàng. mu ne ba mu dee jigéen nag. dëgg la kon foofu rek firndeel na ni kon soxna aussi donte tout tànk la ba mu juróom-ñaari at mbaa juróomi at dafa war a dal comme ni ko góor kii dale ni muy sàkkoo noonu la ko jigéen ki war a sàkkoo ni muy wutee xam-xam noonu la kee war a wutee xam-xam xëy na nag ñun euh, li ñu ne soxna góor ak jigéen moom seen bind bokkut waaye du teree nag xel mi damaa defe ne war nañ ko mën a. tàggat liggéey waaye loolu yëpp nag dañuy ñëw nag ci imam. te doguma la sax soxna si da dangay xool tamit eh, ndax ginnaaw dañuy roy booy roy. Mhm. da ngay xool maanaam ci nga xamante ni mooy sa wéeruwaay di sa di sa di sa giit. Mhm. di sa sëriñ. Mhm. kër njaboot maam borom ba amul benn soxna boo mën a tudd. ne jàngul amut. xam naa imaam nag foofu la ñuy eh, jàllee ci eh, imaam Abdoul Ahad Niang imaam. ginnaaw nag bi ñu nab nabee ba pare ñun soxna yi eh, ñu daal di lay nag bàyyee kàddu gi xam naa nag eh, ni ko soxna Bintu waxee sànq ci biir eh, waxtaan wi soxna Aïcha moom dañ ko jàpp ñun référence ci jigéen ak mm. fii nag dañu ni sàkku xam-xam roy ko soxna yi. ci sàkku xam-xam ngir jariñ askan bi waaye nag soxna Aïcha moom dafa mujjoon yor daanaka daara di jàngaleeg yépp ku ñëw góor ñi ñëpp moom moo leen ñuy solo soloo yenn hadis yi ci moom donc nag xam naa imam foofu daal moom bëgg nañ nga kiyal ñu fi bu baax rek ak euh, yi nga yi ñu jubbanti yëpp rek incha allah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala soxna Koddu xam naa seen nab nab gi am na solo seen nab nab gi moom ku ci jot matoon a jot ku ci jotoon a jël euh, dafa mel ne ñaari ñaari ñaari ñaari laaj ñoo fi jot a jib ci tënk rek laaj bi ci njëkk mooy bu ñu waxee xam-xam mooy lan ginnaaw ba ñu wax lu tax jigéen war a sàkku xam-xam euh, li may tënk foofu rek ci ci gàttal mooy xam-xam buñ ko doon euh, xamle lenn ci borom xam dañ leen dañ leen mooy mbir mu ne nga xamee ko na mu doone loolu moo ko séparé li ñu tuddee culture culture moom mooy xam lenn lu ne nga xam ca dara mais na xam-xam nag mooy mbir mu ne nga xamee ko na mu doone moo ko séparé culture ci loolu boroom xam-xam ne dañuy wax ne pour nga xamle xam-xam ci tënk da ngay xamle xàjjale séddale xamle bi mooy mooy li taw addu mooy li taw adduna ak alaxira maanaam adduna ju jag ci xam-xam lay sukkandiku alaxira ju jagit ci xam-xam lay sukkandiku ci bunt boobu sax moo tax ñu ne xam-xam ñaari ci séddale ay façon yu séddale yu bari lañ ko def am na séddale boo xam da ngay wax ne ñaari xam na xam-xamu dund ak xam-xamu dee xam-xamu dund mooy mbooleem xam-xam yi ñuy sakku ci àdduna yëpp xam-xamu dee mooy xam-xam bu aju ci lijjanti dundu nit ki ginnaaw bu faatu muy xam-xam miiras moo tax sax ci dañ ne al ilmul mooy nisful ilmi mooy genn wàllu xam-xam ndax mbooleem xam-xam yi ñuy jàng yëpp ci àdduna la aju moom nag dee mooy àcc àtt deega mooy xam-xamu miiras mais ci beneen séddale gi dañ wax ne xam-xam daa am lu ñu tuddee ilmul qadim ak ilmul hadis ilmul yi moom mooy xam-xamu yàlla loolu duñ ci jëm xam-xamu bi sosu boobu la ñu tuddi xam-xamu nit ci beneen seetlu bi nga ne ci biir xam-xamu nit da am lu ñu tuddee ilmun ladunni ak ilmun la ilmun ladunni mooy lu nit kii xam te kenn jàngalu ko yàlla ko ko def yàlla ko def ci xol bi ndax xam-xam yi ñuy sakk yëpp da nga ci gis ku ko yàlla defal te te maanaam du jaar ci sàkku xam-xam daal li ma bëgg wax mooy domaine buy dugg di ca sàkku da nga gis nit xam ca loo xam ne wóor na ko péng ci la jàngu am na lu mu ci jàng mais am na lu ci lu mu ci xam loo xam ne yàlla ko defal lu ñu tuddee ilmul laduni loolu mooy mooy waral nit am don wala mu am lu ñu tuddee talent talent wala mu am lu ñu tuddee eh, mu nekk expert ci dara te loola am na ñu mu ko bokkal jàngandool waaye yàlla defal na ko ci loo xam ne maanaam defal ko ci kenn loolu ñu tuddee ilmul laduni mais ilmu ilmu muktasab nag moom moom daanaka moo gën a yitteel li ngeen di waxtaanee mooy loo xam ne dafay dépendre ci effort yi nit ki def pour xam ko boobu nag dana jur yu bëree bëri mooy yi ngeen doon tudd léegi dana jur ñu ne nit ki dafa jàng lu aju ci wàllu lu lu muy gëmee yàlla muy xam-xamu tawhid nu muy nu muy nu muy jaamu yàlla xam-xamu fiq nu muy sellalee jaamu gi xam-xamu tasawuf ñetti xam-xam yi ñooy ñett ñetti yi ñoo yanu diine ci biir xam-xam boobu ñu gis ne kon léegi ci diggante góor ak jigéen amul séparation ci ñett yi ma wax léegi nga xam ne moom ñoo fonde li ñuy wax xam-xam ci diine mooy nooy gëmee yàlla nooy jaamu yàlla nooy sellalee jaamu gi amul séparation ci diggante góor ak jigéen képp ku jàpp ne yow da ngay toog nii sa borom kër di la di la di la di la ma am loxo sax kenn kenn xalatu ko xanaa maanaam ni ngay gëmee yàlla jàpp ne sa borom kër bu gëmee yàlla duggaale nga ci biir gëm ga wala bu sa borom kër jaamoo yàlla duggaale nga ci biir jaamu ga wala sa borom kër bu sellalee duggaale nga ci biir sell ga kooku yaa ngi ko li ñu li ñu tuddee euh, dugg na rubba dugg na rubba euh, ku ko def ku ne maanaam yaa ngi fu rubba nag borom xam ne dañu a ñu koy jàngal dañu wax ne mooy waajoo xam ne gaynde da ko doon dàq dem ba ci garab ne ñoo lang ci kaw garab gi gaynde ga boofu ca roon garab ga mu teen fekk ak segg ci kaw fi mu teg loo loxoom ñangoor nekk fa foofu la ñu tuddee ku dugg ni rubba ndax suuf gi gaynde fi nekk di ko xaar goo xam ne bu moom dana xam ne yoonam nekku ci fi mu teen ak segg fa nekk fi mu teg loxoom a nekk képp koo xam ne daa jàpp borom këram nag ci ñetti xam-xam yi lu mu xam am ma nga ca dugg ni ru dugg na ni rubba dugg ni rubba nag baaxul ci adduna bi waxuma la yomal xiyam mu des nag lu tax jigéen war a sàkku xam-xam jigéen li tax mu war a sàkku xam-xam soxna si junj na ko léegi dañu wax ne lépp lu nit di jëfee ci yaayam la koy njëkk a jële moom mooy ki nga xam ne lu doom di jëfi ëllëg ci yaayam la ko la ko jële ndax olof day faral di wax ne lu juddoo cim tàgg bu nawul jaaxali bokkam kon nu yaay mel noonu la doom di mel te nit mënut a joxe lu mu yorut te xam-xam la ñuy nit ja nit nit am ko jub te loola bu nekkee ca ndey ja nga def ko ci doom da yomb kon loolu mooy li njëkk ci li war a jigéen war sàkku xam la ci des mooy am am na ku ko junj ci yéen mu wax ne li tax ñu naan jigéen maanaam warta sori ci xam-xam dëgg la daa xalaati ceddo la xalaati ceddo yi ñoo gëm ne jigéen xaj na lu muy jullee rek njàngum jigéen lu muy jullee doy na man lu ma ko ne ko wax te lu muy jullee joojee sax di daa mat a taxawaat di lu muy jullee ji lu muy jullee ji di maanaam fi ne ay ati at la ndax boo ne lu muy jullee lu muy laabee laab googu dañ la koy jàngal mais li ci gën a metti mooy koo ci waar di ko wax ne ko sàkku jël xam-xam da wax ba daane wax ko say fukk yu bari mu ne la euh, war na la nag effectivement dama ba ma waree na moo tax ma wax la ko ba ma la ko waxee nag ba ba noppi wàcc ma war la di xaar loo jigéen kuy sàkku xam jigéen a ca war a gën a raw ndax moom al ummu madrasatun ida aadattaha aadatta shaaban tayibal araqi maanaam dañuy wax ne soo ko xasee defar ba mu jag defaroo benn nit mi population bi lam nga defar kon kuy jàng jigéen la la war a njëkk jàng ndax surtout nag avenir bi ñu dëgmal nga xam ne da da da ngay fiiroog ñoo xam ne xam-xam mooy ndax amoon na jamono yoo xam ne alal moo moo doxoon mii fii ñu jëm xam-xam mooy dox ku ku ku góorgóorlu ci xam-xam rawatina nag euh, gën a sensibiliser jigéen ñi pour ñu sàkku ji xam-xam ña ngay wàcc waar ña ngay bàyyi waar li may mujj fu nag mooy soxna si mooy am na bayit yu neex bi benn waay waxoon ci xam-xam bu ko jigéen ñi euh, xamoon danañ sàkku ji xam-xam waaye benn waay nee na woon law badati nisaau kaman ulim na la fuddilati nisaau ala rijaali xam nga bu fekkoon ne jigéen ñi mel na ña ma xamoon kon jigéen ñee gën góor ñi lu ko waral mooy dañ fiy tudd ay ñoo xam ne euh, ci biir bi taqsim bi l'islam di tëral ki gën ci ci jigéen ñi wa fi nisaai mariamun fa zahra fabnatu siddiqi baad al kubra loolu borom asal wax bu ñuy tartib dañ wax ne ndax kan moo gën ci jigéen ñi Euh, sayyidatuna Maryama di ummu sayyidina Isa moom la ñuy teg ca ginaaw bi ku ci gën ñu ne ndax sayyidatuna Xadija moo gën wala sayyidatuna Aïcha moo gën ñi ne Aïcha gën ñi ne Xadija gën ñii tafsil seen diggante ne dañuy xool dañ koy def min haysu yaat fa dañ koy xool ci kenn ku ci ne la tax ñu ne moo gën mooy mooy lan. ñu ne kon bu fekkee ci wàllu dimbalee lislaam dimbale yonent bi ci njàlleem kooku sayyidatuna Xadija moo gën ndax mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk dugg ci lislaam nangul yonent bi jàppale ko. bi ko yonent bi yoree tegul kenn ci kawam ànd ak moom et bi bi mu wàcc bi liggéey la yonent bi door jël keneen kon ci jàppale jàppale daawa bi ak jàppale bor sa borom kër ak xam teel koo dégg ci côté boobu Sayyidatuna Xadiija moo gën mais bu dee ci côté bii ngeen waxtaan ci wàllu xam-xam ak tasaare ko Sayyidatuna Aysa moo gën ndax moom xus nisfa diinikum min haadihi l-humayra maanaam seen genn wàllu diine jël leen ko ci ndaw si li ko waral dafa teel a dugg ci loxoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñaareel ba mooy moom dafa doonoon koo xam ne maanaam li ñu ko tuddee ak faqiha la faqiha mooy ku dégg diine ndax ku yàlla bëgg ci yow aw yiw da lay dégloo diine kon jigéen kuy jàng mu la rek mu la a gën a jàng loolu daal mënees na cee yem ñu koy jaajëfal bu baax moom imaam Abdoul Ahad Niang ci kàddu yooyu mu yëkkati nag xam naa bu buñ ne jigéen eh, ni ni mu sëggeeg yooyu ñu ciy wax noonu maanaam man dama naan si suñu jamono ji fi mu toll sax soxna yi xam-xam yi ñuy utiliser ci maanaam yenn yi buñ ko doon ëlbati di ko jàng. ak di koy jubbantee seen yu baax yi dina am solo parce que des fois ñu dugg ci yu nga xam ni lijjantee ko nu nga xamante ni noo xam ni moom bu ñu ko utiliser woon ci li ñu wax bon sens na nekk ci yoon wu baax bi rek. nga xool ni muy amee njariñ moom euh, ñoo ngi jóge nañu nag euh, ci mhm. euh, soxna yi nga xamante ne dañ doon am xam-xam ci jamono yu njëkk ya waaye fi mu ne nag fi ñu toll mhm. ci temps moderne bi ndax fi mu ne nii soxna yi xëy na sax bu ñuy wax dañ naan ku ci ne xëy na yor nga ci léegi yenn ci xam-xam yi mhm. bu ñuy wax dañ naan sax xëy na tey la gën a bëri ndax ñii ñu leen di jox ay raaye fii euh, yenn yi nag sax dañ naan xam-xama ko indi ba soxna yaa ngi revendiquer di laaj seeni mhm. droit ci yenn yi mhm. loolu yëpp nag xam-xam xëy na sax moo koy indi ba ñu am yenn droit yi mhm. léegi nag euh, ci euh, jigéen ñu moderne ñooñu ñuy wax xam-xam fii jamono toll ak jigéen moom lañ bëggoon nga nga nga ñëwal ñu ci ñu soog a nag jàll ci soxna Binta d'accord en fait buñ nee par exemple xam-xam bu moderne mhm. bon personnellement jàpp ma lu moderne la mhm. parce que li woon démb du ay lépp mhm. lu amoon la c'est-à-dire bu ñu déparé ci deuxième siècle ba fi ñu toll nii ci vingt-et-unième siècle mën nañ ne li fi am nii amoon na fi kon mën nañ jàpp ne coppiteeg jamono wala mutation sociale moo war a indi benn aspect bu négatif boo xamante ne ni moom la askan askane ñi am xam-xam ci ay soxna c'est-à-dire bu ñu xoolee bu njëkk ba amoon na soxna yoo xamante ay astronautes la ñu woon ñoo xamante ne nii ay chimistes la woon ñoo xamante ne nii euh, ay médecins la ñu woon doonoon fi ñoo xamante ne ñu xarañ lañu woon doon ay soxna itam di jëf jëf ju rafet yoo xamante ne yu sell la donc bu àdduna dee dox ba jamono yi ñu toll nii même xam-xam yee fi nekk peut-être technologie mooy avancé mentalité tamit di avancé nit ñi tamit di dox maanaam échange am euh, entre les cultures ak yooyu loolu mooy indi aspect négatif bi. ab jaxasoo daal ab jaxasoo daal di am mm-hmm. voilà influence am jugee ci wàllu maanaam côté occidental bi ñëw fi mm-hmm. nga xamante ne nii mooy ci réewum Afrique diine jaxasoo. bu ko defee ne ku nekk di revendiquer loo nga xamante ñenn ñi bokk di revendiquer loo xamante ne ni yeyoowuñu ko ndax buñ ko jaaralee ci yoon sàkku xam-xam jëfe ko restituer ko ci anam bi ñu ko war defee te yàlla rek tax su boobaa mën nañu jàpp ne xam bu wér la xam-xam bu sell la xam-xam rafet la donc buñ duggee ci science nga xamante ne mooy science bu baax ba soxna koy wax léegi nii lu mel ni ay médecine lu mel ni astronomie lu mel ni ay physique chimie ak lépp lu mu ci doon soxna yàgg nañ ci am ay cër ba suñ joon yàlla tey jii donc instant bii nii nag euh, mën nañ ne comme li nga laaj léegi li mu jur ci ay coppite ci wàllu euh, maanaam mooy aspect négatif nekkin bi boobu mooy wax ci ah, nekkin bi dañuy dañuy egg ci léegi xam-xam bi yow di nga ko sàkku di nga ko mm. am fi ne boo boo seetloo ndeysaan am na ci mag ñi imaam mi ngi koy wax sànq am na ci mag ñi fi ne jàpp nañ ne soxna mm-hmm. jigéen warta jàng sax tubaab lu yàgg mm-hmm. ndax dañuy jàpp ne day doy waar waaw parce que li tax ñuy jàpp loolu dama yaakaar ne benn instant ñu ñoo leen jox raison parce que boo jàngee tubaab pare da ngay a diir mbagg sa borom kër. déedéet da nga naan da ngay jàng tubaab. Mhm. jàng ko naan tubaab bi diwoo ko. Mhm. sangoo ko raxasoo ko moom daal yow tubaab. doon tubaab bu sotti tubaab la. Mhm. Euh, science bu ñu ko waxee tey xam-xam. ñu koy gëstu tamit donte da ngaa jàng mbir tamit. warta mën a yàq ci sa ngëm lu baax ak sa jubal ak sa def lu baax parce que dama naan ki yor xam-xam xam-xam bi ci moom ma laa bëggoon xam naa soxna maam mhm. soxna Bintu mhm. dina ci ñëw mais xam-xam bi gën pour man mooy xam-xam bi nga xam te boroom dafa ragal yàlla donc ci jigéen ñi ba tey ñu ñu ñu xuus d'accord ci biir jigéen ñooñu li koy indi mooy par exemple fa ñu war a jaale xam-xam ba lañ ko jaarale mm. boo jàngee li ma wax sànq mooy bayaaba cest à li nga xamante ni mooy basique mhm. jàng sa diine jàng la ca war tegu topp cheminement bi ni nga ko toppee nga xamante ni pyramide lay doon ba egg ci sommet ba boo jékki-jékkee def benn jalon jékki-jékki tëb egg ci sommet ba li ci suuf xamoo ko maanaam xamoo li dal xam-xam boobu am xam xëy gis gloire xëy gis loo xamante ne nii lu sotti la maanaam say morom ñu lay euh, maanaam tëkkale ñi nga xamante ne peut-être ay tubaab lañ yow nga am complexe d'infériorité ba tax yow nga jël sa bopp aj foo xamante ne nii eggoo fa di euh, def jëf ne ay jëfinu safaan la loolu moo tax des fois ñuy euh, xaw a safaanal wala ñuy xaw a ñoo ko mën a tuddee sax sikkal jigéen ji nga xamante ne dafa am jur mi ngoog day jur leneen loo xamante ne nii yow sa jëm mi ko yow di muy soxna day mujjee sax lor dootu la voilà di yenn saa yi nag bu ñu ko xoolee sax nag ci basage âge dañu naan naa ko dugal ci éducation sàngam muy ñu yar ko te mhm. yar boobu ci biir loole xam-xam boobu ñu koy jox kooka lam xam-xam la ko mën a jox xam-xam boobu la koy jox mu màgg ca màgg màgg ba xëy na yenn yi muy indi yenn dérive yi ñuy wax mhm. waaye nag euh, soxna Binta ba tey ci même question bi rek dañuy ñëwaat mhm. jigéen euh, ci modernité bi ñu nekk tey jigéen femme moderne la ñuy wax mais nag euh, ñoo ngi wax ci xam tey sàkku xam lan la jural jigéen fi ñu toll nii ci temps moderne mooy daanaka mooy li soxna jaar waxaa rek mooy mooy mooy dellu si waat soo seetee sax xëy na kuy seetaan émission bi début ba fin danaan xanaa ñi kon xam-xam dañ koo tënk rek ci wàllu maanaam diine alxuraan ngeeg daara ji rek waaye boo gisee xëy na ñu jiitalool gën faa tënku ci pàcc pàcc bu njëkk bi day di maanaam xool lu fa jiitu bu fa xawee samp rek day am lu fay defal lu bëri xëy na tey ñi nga xamante ni ñi ngi ci daare nasaraani wala ci sàkku yeneen xam-xam yi nga xamante ne wute naag diine gi li tax ñuy dem ba xaw a mel luy dévier suñ ko sañee waxee noonu mooy dafa moom lu jiituwul ci xol yi ni ko sëñ bi daal waxee ne dafa mel ne tubaab bi da koo jiitu ci jëmm ji moom mu jiitu leen ci xol yi moo tax tey di nga gis ñeen jëmm yoo xam bu ñu amoon maanaam ay raayaak li ci biir du tere ñoom la ñu doon moom la ñuy doon ba tey moo tax xam-xam moom dëgg-dëgg daam looy war a lu jiitu xam sa diine xam fa nga bokk bu ko defee leneen bu ñëwee day day gën a mottaliwaat soo xoolee tamit euh, ma yeggali ba tey soxna soxna Codou Cissé maanaam da ngay gis ci jamono yu ñu toll nii soxna yi macha allah da ngay dem leen fekk ci bureau yi ñuy liggéey dina am ñu nga xam ne ña nga war a ña ñu war a comporté woo ña ngi koy comporté ba tey wàcc ñu nga xam ne dama jàpp ne dafa luwaab dafa rafet maanaam soxna yi gën a góorgóorlu ci médecine xam nga tey état bi wala ñenn ñeneen ñi ngi euh, gën a maanaam soññu soxna yi ñu dem defi ay militaire ay kii ay fànn yu bëri waaye man médecine dama jàpp ne tamit war nañ ca gën a soññu soxna yi loolu tax ma koy wax mooy sama ki position boobu tax ma koy wax mooy da gis ne maanaam soxna yi rawatina ñi nga xamante ni dañuy muuru am na yenn kees wala yenn teggi ni ñu am tey bu ñu tawatoon ba dem hôpital dañu am kees sax góor seet leen tey maanaam bu fekkoon tey soxna yi def nañ benn politique gën leen sensibiliser ñuy gën dem vers la médecine dina tax tey soxna tey bu tawatoon dugg ci hôpital moroom soxnaa moo koy facc tey bu doon dem seeti benn sage femme soxna la fay dafay gën a yombal liggéey bi dañu fa war a ñu gëstu xam-xam dem di liggéey ci loolu noonu soxna yi ñi am ay raaya comme ni nga ko waxee tey boo demee ci àdduna bi yeneen dëkk yi da ngay dégg ñu ne soxna am na prix sàngam ñun histoire bi ñu gën a xam bi gën a siiw bi ñu nekkee primaire doon ko jàng mooy Pierre ak Marie moo xam Marie Curie jàppale Pierre pour mu am euh, affaire euh, trouvé lan mooy rajo euh, radioactivité yooyu noonu nga xamante ni yàgg na tey ñi probablement ak fu mënti nekk ah muy nekk ci islam geeg feneen son dafa yàgg am xel yàgg am xam système ADA gi ñu wax ci informatique kii ko ñi ba ñuy wax système ADA te xamuñu ne soxna si tur Ada Lovelace moo moo moo moo moo moo moo moo kii loolu moo moo découvrir loolu noonu góor ñi nga xamante ni tey ñoo fi dàq dawal oto seen essuie-glace yi ñuy kii pour di fompe ci pare bu tawee xamuñu ne loolu ki ko découvrir benn soxna la moom it ngir xaw ma benn journée nekk na ci benn embouteillage taw bi metti lool ñëpp di jël loxo di fomp pare-brise lii kat war nañu am benn bras mobile boo xamante ni day fomp lépp dindi ko loolu nga xam ne kon maanaam soxna mooy ki nga xamante ni suñu woon da ko may xel bu màcc bu xalaatee rek day day kii te du ñëw foofu ci suñu diine gi soxna Aïcha bi ñu tudd sànq neewoon nañ ko am xam-xamu médecine la maanaam wàllum pàcc ne nañ mayoon nañ ko ci suñu borom mayoon nañ ko ci te tey suñu maam yi tamit da ngay dégg maanaam ay ñun dañ koy wax ay recette de grand mais wala pajum olof ak xeet waaye am ni dañoo amoon xam-xam faj kon ñun suñu a mën a développer li mooy dafa am nag a jiital mooy soxna jaar soo amee xam-xam dégg nga français wala jàngale na warul tax ngay doya dal euh, sa borom ko wala keneen lu mënti doon doon ragal daal xam naa ci diine fi ñu toll euh, liñ ci doon ragal mooy euh, sàkku xam-xam ba am xam-xam hmm. xëy na ak ragal yàlla newul ci suuf ak lu ni mel hiérarchie ba doguma la sox soxna Cissé récemment gis ngeen ko ci télé bi mooy xale bi nga xamante ni moo remporté troisième prix te loolu tamit lu ñu war a wax lu am solo la jigéen la elle s'appelle Soxna Sène Soxna Sène la tudd moo remporté troisième prix ci 75 pays yu daje woon ci niveau international soxna sénégalaise ba moo remporté troisième prix concours bi ñu ngi ko defee Malaisie xam naa du ñàkk oustaz xam na ko xam nga loolu fierté la ñun ci waa chaque année ay promotion boo koy santale sa yaram day daw bu jigéen ñi wàccee kaamil bind ko seen loxo ñoo di ko jébal si Mountakha Bachir sa yaram bi day daw nga xam ne lii ay jigéen ñoo ko jàng nga xam ne maanaam ñun ñoo xeeb suñu bopp rek waaye maanaam jigéen suñu borom da koo jagleel loo xamante ni bu góorgóorlu woon tuuti kenn du ko raw ñu jaajëfal nag soxna Bintu Amar ci kàddu yooyu daal di nag tàbbi ci suñu rubrique info santé info santé ñu ci dalal soxna ndey Marème Diop mu daal di ñuy defal nag ab gëstu ci wàllu set ci hôpital bu jéemul soxna ndey Marème daal di fay fekk benn ci ñi nga xamante ni ndaw yi service d'hygiène la ñu soxna ndey Marème ñoo ngi lay ziar. maa ngi jël soxna Ndeye Marieme yow yaa ñu euh, nag demaloon euh, ci hôpital bu jiimul daal di fay nag euh, fekk kenn ci ndaw service d'hygiène Euh, nga wax ñu nag ci élément bi nga xamante ni moom nga ñu wutale ji woon foofu service d'hygiène aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdan liman jaala fil kalami an nahwa misla melhi fi taam wa salaatu wa salaam ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina wa habibina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki téléspectateur ak téléspectatrice de Almouridiyyah TV maa ngi leen di ziyaara tàkkood di di la ziyaara di ziyaara sa ay invité di ziyaara al oustaz Abdou Ahad Niang di leen wax ni que macha allah comme ni nga xamante ni la ko soxna code waxee indi nañ leen ci seen biir euh, émission ëttu soxna yi rubrique bi ñuy woowee info santé info santé di rubrique bi nga xamante ni moom mooy leen di doxal lépp lu nga xamante ni moom moo jëm ci seen wérgu yaram euh, nga xamante ni tànn nañ loolu mu xamante ni émission bi doon xamante ni ci jigéen lay dox macha allah rabbi ñu di tànn li nga xamante ni moom mooy hygiène maanaam li nga xamante ni moo jëm ci wàllu set comme que jigéen moom mooy ki nga xamante ne mooy société moom mooy yaay moom mooy école moom mooy ki nga na ci moom mu làmboo seet gu mat sëkk ba tax na ko ñu daal di tànn loolu pour waxtaan ci ak yéen kon du ñu def set set nag moom dafa yaatu ndax set euh, moom mooy sell lu yaatu la soo jëlee wàllu ñam set day dugg soo jëlee wàllu sa yaram set day dugg soo jëlee wàllu mbedd yi set day dugg maanaam dafa yaatu ñuy jàng set dañ koy jàng lu mat ay fukki at. lépp lu itteel jigéen ak doomam daf ñu itteel ñoom ñun góor ñun bàyyi parce que bu ñu sañoon suñu jabar yi dañuy wér suñu doom yi wér donc xale yi dañ leen war a surveiller di xool lan la ñuy def fan lañuy ñuy dugg bu ñu xëyee war nañu sangu ndox ak saabu waxuñu sëlmu nii rek dem de mais ndox ak saabu da nga war a sang xale bu mu solo ko yër yu set di ko séroyee nag ci fan lay dugg est-ce que nekkul ci mbalit mi ci mbedd mi est-ce que nekkul ci paccax-paccax yi di wër yooyu yëpp da war di ko séroyee loolu moom sa kër la mais waa dëkk bi seen bopp war nañ séroyee dëkk bi fépp foo xam ne ndox dafay taa même bu amul canalisation mën nañ jël peel jéem a na ndox mi wala ñu suul ko remblayer ko ba ndox mi dem bu dee am na mbalit war nañu def ay set setal dindi mbalit bi ci dëkk bi donc ku ci nekk da ci am cër ci kër gi ak ci mbedd mi jigéen ah baro bu setee dana wér su ëmbee nag la war a gën a set parce que déjà bu ëmbee dañ naan jigéen bu wérul déjà loolu lañ wax jigéen bu wérul mais nga yow wéroo ba pare bëgg ci teg salté encore ti foo jëm donc jigéen dañ gën a soxla set te jigéen mooy nekk ci kër gi di togg bu dee da ngaa salté boo toggee kon moo koy lekk donc war ngaa set ci sa bopp war ngaa set sa kër war ngaa set ci li ngay jox nit ñi ci ñam war nga sellal ndox mi ci kër gi tamit donc war nga set surtout say loxo ndax lépp lu ñuy def loxo lañ koy defee. Hmm, bassin yi ci kër yi ñun bu ñu sañoon bassin yi day deñ bu ñu bassin yi day deñ bassin lan moo ko indi màggalu Tuubaa moo indi bassin yi maanaam nit ñi dañuy ragal ñàkkum ndox ñàkkum ndox moomu ragal ko moo tax ñu indi ay bassin mais bu sañoon day day deñ xam nga li tax Tuubaa ñun service d'hygiène dañuy def chaque trois mois dañuy analyser ndoxu Touba mais xam nga ndoxu Touba SONES gérewul forage Touba yi donc ndoxu Touba yi amul eau forage yi kenn du leen eau de dina leen eau bu màggal ñëwee rek lañ leen eau bu paasee paase na donc yow bu dee da jël ndox moo xam ne ni sellul nga def ko ci bassin ndox boobu su dee defoo ci eau ndox boobu du baax soo ko naanee mën na la indil ay ay jàngoro. feebar yu ñuy wax typhoïde loolu moo koy indi donc bu dee am nga ndox sa bassin sa kër normalement bassin boobu danga nga fa dafa war a set da nga war di ko bomb ba mu baax def ci eau de balaa nga ciy def ndox. wajaboo yow ma soxna Ndeye Marieme Diop ñu seetaan euh, élément bi nga xamante ni moom nga ñu jëlali woon hôpital jéemul ginnaaw lool nag euh, lan ngay tëjee ci euh, kàddu yi nga xamante ni moom la Mamadou Sène wax ci wàllu cet ñu jaajëfal ko ci yombal gi nga xamante ni yombalal ñu ko ñu mën ko posé ay question soxna Kodou li nga xamante ni nag mën naa ko dolli ci ci set set mën nañu mooy ponk bi nga xamante ni moom moo gën a am importance ci dundu doomu aadama bi waaye nag ak wér-gu-yaramam parce que doom aram bu fekkee ne bu fekkee ne setoo doo mën a doo mën a te boo wérul doo mën def sa ay jaamu yàlla doo mën a def sa ay li nga xam te yow moom nga bëgg def ci sa jëmmi bopp dégg ba tax loolu noonu te tax ba tey bu fekkee sukkandiku na tamit ci lislaam mi ngi wax na ni an nazafatu minal imaani set dafa bokk ci gëm yàlla kon pour jullit mu mën a set mën doon ki mu mën a euh, def li nga xam ne bëgg na ko def il faut mu làmboo il faut mu làmboo set gu mat sëkk waaye na ñuy jaawale tuuti an nazafa ak at tahaara hunaaka farxun basiit maanaam bu ñu waxee laab moom mën na ne tey jii bu fekkee ne da ngaa euh, laab gi nga xam ne bu fekkee bokkaale woo yàlla tooñe bu baax da ngaa def li ñuy woowee euh, nazafa da ngaa def ñuy woowee taxaara maanawiya waaye bu fekkee tamit da ngaa topp yaa ngi jàpp yaa ngi sangu farata bu boobaa la yaa ngi def li ñuy woowee taxaara xisiya léegi kon foofu noonu tamit nazafa bu ñu ko waxee ñetti xaaj la am muy nazafa saxsiya yow sa jëmmi bopp set gi nga xamante ni moom ngay set maanaam tey ji bu fekkee ne ci say ci sa kanam wala ci sa say nopp li saa ngi gis benn parent wamat bi moom la nga ne dama ko yóbbu hôpital parce que nopp bi darul dégg waaw nopp bi du dégg parce que depuis muy xale nga bàyyi ko muy raam wutoo coton tige nga xool nopp ba xam am nañu ci dugg wala dara yooyu noonu tamit mën na mën indi xale yi ay ay jafe-jafe ba tey tamit bu ñu xoolee ci euh, wéy yeneen bi sax tamit daf ñu digal sa ay ongle par vendredi nga di koy dagg léegi kon loolu noonu euh, day day day doon yeneen yoo nga xamante ni il faut ñu koy wattandiku te tamit surtout jigéen ñi set gi nga xamante ni jigéen war na koo mën a set ci ci lekk gi nga xamante ni ñoo ngi koy ñoo ngi koy lekk waañ bi dafa war a set waaye tamit légumes yi nga xamante ni moom la ñuy lekk war a ànd set bu mat bu mat bu sëkk parce que ci biir la jëm loo xam te ni mu duggee moom génn du ko yombaan nag moom il faut ñu toppatoo la lay duggul mu doon euh, te tamit euh, maanaam ñu xool xasaraat maanaam yi nga xam ne ñooy naaw di dox ci biir waañ bi pour mu mën a mu mu bañ dugg ci biir la nga xamante ni loolu la ñuy togg ndax yéen bi sax sax daf ñu ko daf nañ ko koo digaloon waxoon ne dee leen ub seen dee leen ub seen bool yi te ngeen di tëj bunt yi di fay lamp yi nee na ndaxte mën na nekk jinax ji mën naa jóge fee daal di fay daal di laal lamp bi bu ko defee waa kër gi gi lakk loolu donc moom moo ci moom moo bu ndaw bi ba te tamit mu am nazafa bi iya maanaam environnement bi nga xamante ni bi nga am xamante ni ci ngay dund bokk na ci ci biir kër gi bokk na ci jardin yi bokk na ci mbedd yi tamit ak marché yi foofu tamit set ba moom mat sëkk dafa war am mu doon mu laaj fagaru bu doy sëkk parce que dañuy al wiqaayatu xayru minal xayru minal minal ilaaj foddeeku balaa ngay lakkale euh, maanaam daal nañu set daal lu ma xew set gi daal da ciy baax ñu jaajëfal nag bu baax soxna Ndeye Marème Diop xam naa nag tubaarkàlla yi mu wax day bind yu am solo euh, ci ñun soxna yi macha allah lépp nag jëm ci wàllu cet ak naka la ñuy taxawoo euh, kër yi ñu koy jaajëfal bu baax nag ci premier numéro bi nga xamante ni moom la participer ci ëttu soxna yi ñu koy xaar ci yeneen ak yeneen ak yeneen i rubrique incha allah ñu koy dox dox jox dox daje euh, ci beneen émission incha allah. ginnaaw nag bu ñu dalalee euh, soxna ndey Marème Diop euh, ci rubrique euh, boobu di info santé nag dañuy daal di jox kàddu gi imaam ginnaaw nag imaam incha allah ñu ñëw ak ci portrait surprise bi ñu leen waxoon di soxna Rahma soxna Rahma di nag soxna ci yonent yàlla Ayub waaye nag balaa boobu ñu daal di jox kàddu gi nag ki fi teewal comité scientifique bu Almouridiya ci biir ëttu soxna yi di oustaz Abdoul Ahad Niang jërëjëf soxna Codé jërëjëf mbokk yi fi jaar yëpp ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm ci jotaay bu am solo bii waaye pour tënk rek li ma bëgg a wax ci mujj mooy li fi jot a romb tudd ngeen fi luy tegtale ne ci jamono ju bees ji jigéen ak sàkku xam-xam li am solo foofu rek am na mbokk mu ko junj waaye loolu lay gën a dëgëral mooy man nga am xam-xam waaye bul changé maanaam principe yi l'islam tëral ci gëm-gëmu jigéen ci wàllu lislaam maanaam bi ma bëgg wax mooy mën nga am xam-xam mais bul changer sa gëm-gëm bu ñu la soppi daal ndax li ëpp ci gars yi duñ la jàngal bàyyi la mais dañu lay jàngal nag boole waale ci seen mbiri bopp te loolu nag jigéen nekk ci victime day yomb ndax liy soppi jigéen day gën a yomb ci liy soppi góor ndax na ñoo xam ne ne xam bi ngay jàng daa war a ànd ak naan sàngara daa ak coleen bi nga di ko solo noonu euh, dafa war a ànd ci même ci comportement bi ndax am na ci ay jamono yoo xam ne xaj ne dañ ko dafa jamono dox rek mu changé mais am jamono yoo xam ku daan jàngale ci école yi maanaam doo sol xalaat sol caay caay yi doo ko bu sol caay dañ naan baraaye ko léegi ci kaw loolu ko koy defloo góor nag xam nga bu gisee jigéen mu tax léegi bu mooy ñaareel ba mooy domaine yi nga xam ne jigéen ñi ñi ngi sàkku xam-xam mais am na domaine yoo xam ne man gis naa ne jigéen dañ caa des ginnaaw bu baax a baax man ci ci xam-xam boobu xam-xam wàllu médecine wàllu médecine moom buñ buñ gën a war a soññaat suñ jigéen ñi la surtout nag wàllu gynécologie boobu toujours li ëpp ci sénégalais yi ñi leen di seet sénégalais yi ñi leen di seet ay góor lañ te am na ci ku sañoon nag wax dëgg yàlla métier moom man de samay soxna moom ma sañoon seen moromi soxna ñoo leen seet wax dëgg yàlla waaye ku amul la nga la la la la nga bëgg am la fa sas waaye li fi sas yi nag daa war a daa war a daa a ñëw kon nañ jàngal euh, jigéen ñi ci métier moom ñuy seetal suñu jigéen ñi wax dëgg wax dëgg yàlla mu des nag maanaam nit ki nga jox ko xam-xam te amul euh, jeexit ci millier ba mu jànge lu jafe la maanaam séparé bi séparation bi am ci diggante jël xam-xam mais bañ a jëlaale culture ba la jëlaale ba loolu jafe-jafe la bari waa jigéen ñoo xam jàng nañ di feeñal seen xalaat mais li ëpp ci lii feeñal xalaat yi ñuy tam wuteeg lislaam daa fekk ñu am fuñ ko fuñ ko jëlee kon baax na ñu leen di jàng ndax al insaanu ibnu bi atihi nit ki environnement bi mu dund faw mu am impact mu muy def ci moom kon baax na ñu jàngal leen xam naa du fi danaa ko fi xaj-xajal xis sab sëñ Tuubaa nga xam ne sëñ bi ci toujours rek ci wàllu sëñ bi dafa déggoon jamono xam ne xam-xam danañ koy sàkku mais xam-xam dafa am jeexit ci nit ki milieu bi milieu bi di def ci moom ndax nit ki am na bàyyi waaye am na bàyyi yu ñaareel bàyyi ñaar mooy milieu am sëñ bi euh, école français bi ñu def ci njëriñam ci tënk rek biñ ko fi bëggee tubaab bi dafa wax ne dafa wax euh, dafa wax euh, sëñ bi ne ko dañuy dem waaye nag laaj na ñu am ñuñ jàngal bàyyi leen bàyyi leen mbir mi sëñ bi daal daal di yónnee ci kilifa yëpp laaj ci xalaat bi mu ci laajee xalaat bi mu yóbbu ak Sëriñ Mbàkke Buso Sëriñ Mbàkke Buso dane su fekkee lu muy joxe ndigal dañ koy def waaye bu fekkee lu muy laaj xalaat na am nañ ci xalaat bi ñuy wax ko sëriñ bi si mi ne hakada gis ngeen mu ne ko lu ñuy laaj xalaat la xam-xam ñu ciy def suñu yarum bopp dana mën a nekk loolu moo indi franco bi ci Jurbel kon nga mooy nga jël nga jëlaale kii bi la ci des foofu mooy mooy jëmmi jëmmi Sëriñ nañ doon na wax ne Euh, ar maanaam diine ji moo ñu booleeg naar yi mais adduna ji moo ñu booleeg tubaab yi ku déggoon jamono la diine ji moo ñu booleeg naar yi mooy diine ji ci ci arab lañ koy jàngee mais adduna bi moo ñu booleeg tubaab yi mooy français bi ñuy jàngee ngir bëgg ngir bëgg adduna bi ngir ñu ñu ñaar yi la may mujj nag mooy ci wàllu li sëñ bi doon wax ci wàllu set soxna Marème mi wax na lu am solo mooy diggante séparé li teqale diggante set ak laab an nasabol loolu li sëñ bi doon wax léegi ci li ñu seetaan léegi nee na baaj yi bu sañoon mu dañ mais baaj bi kenn ku ne sa baaj bi sa kër na ngay fexe ba muy set daaj ci boole wàll nañ nga def eau mais foofu nag mm, mën naa set mën naa am mais diine day dàqu loolu it poñ poñ mu am solo la léegi gis ñoo dañuy def seen ci seen baaj yi dañ cey def eau de sevel mu changé ko dëgg la boo ko laal mën naa dëppoo wér yaram seet am na mais nag kenn du ci mën a jàpp boo ci jàppee du baax boo ci sangoo farat du baax boo ci demee du baax ndax buñ ko defee ci foofu sax euh, jadal la xuloo la ci diggante borom du ma ci indi ma mais bu fekkee dañ ko def ci forage ba muy xellil ñëpp kooku am na lenn ci borom xam ñu ne kenn mënu ci dara moom mais su fekkee ne nag xelliwu ko ci forage ko sa moom du a jàppati kon moom dëgg la mënees na koy def ba wut boo xam ne baajub loolu la ñu fay naan mais ba ñuy jàppee nag bu ñu ci defal si gi mooy mënees na ko mais lab nag dafa am lu diine nangu mooy ñett couleur yi ak caf ci ndox mi na ko yàlla sàkke na mel noonu bu ci changement am bu ma doon tënk daal lu la mën a tënk di rafetlu lool nag jotaay bi ndax jotaay bi xam naa gaa yaa ngi yàkkamti waaye jotaay la boo xam ne ay jotaay jotaay la war am ndax ndax yitteel gi mu yitteel jamono di di leen gën a soññ ci ngeen sàkku ji xam-xam daal jërëjëf ñuy jaajëfal nag imam euh, Abdoul Ahad Niang teewal comité scientifique bu Almouridiya euh, fii ci émission bi euh, daal di ñuy nag tënkal li ñu doon waxtaanee tey jëm nag ci ràññeeku soxna yi ci sàkku xam-xam ngir jariñ askan wi waaye nag bala ñuy tëj dañuy daal di nag indi leen portrait bi ñu leen waajal ci sunu yóbbal nag lañ ko tuddee ci rubrique yi ñu ni dañu koy daal di dolli ci émission ëttu soxna yi rubrique bi ñoo ko bii portrait nag ñoo ngi ko euh, duppee euh, sunu yóbbal tey ñu ciy waxtaanee soxna Rahma. Euh, soxna Rahma soxna la woon ci yonent yàlla Ayub moom nag dañu ko ràññee woon ci nangu bu nga xamante ni moom la nangu loon borom këram daal di koy taxawu nag ci jamono yu metti ak yu neex waaye tamit nag ginnaaw bi borom këram nekkee ci coonoot musta bàyyi ginnaaw borom këram lu ne nag daal di feeñ ci moom ndax sët la woon ci yonent yàlla Yuusufa la ñu wax amoon taar lool. waaye nag taxaw woon borom këram bu baax a baax a baax moom nag la ñuy teewlu portrait bi ñu def ci ñoom ñu def ko sunu yóbbal ñun soxna yi. bismillahi rahmaani rahim. ayyuba rabbahu anni massaniya ad wa anta arhamu raahimiin. àddina mas naa dox ba daj ci waaju baax góor yàlla la woon moom muñkat la woon moom ayyuba di turam yonent bu yàlla teral defal ko ay teraanga ak i xéewal waaye teg ko ay nattu yu tiis tiis ngir yëkkati ko fa moom yàlla yëkkati ay darajaam ay yóbbaadi turam àddina mas na dox ba daj ci soxna su tedd muñkat la woon moom tur waa nga woo jëmm ja raxma de moo di aw turam moom soxna raxma moom mi doonoon soxna yi yonent yàlla Ayyuba yërmande la wuyoo ngir yërmandey sunu borom muñ la doxe ngir sàmm kóllëre ak rafetal ak nekk ngor la sàmme nekkinam ak boroom këram déglul ma wax la tey nga xam mbir ya xewoon keroog ba buur yàlla tege nattu ba woon teg ko boroom këram nangu alal jawoon yaram wa xëy tawat te kenn bëggu ko woon gisul ku dul raxma jëfam am na ndimbal gisul kudul raxma jëfam am na ndimbal moom yonent yàlla ayóoba sax ya war yaram wa mënatul xool mënatul lekk a kanaan raxma taxaw waa dëkk wa xëy ber ko génne ko sànni ko far mu def ni ak balaa te moom xam na ndogal mu def ni ak balaa te moom xam na ndogal ca jamonoy fitna ya ak tiis ya ak wéetaay wa kenn xëyatul di dem fa moom ku dul raxma raxma boole jaamu yàlla ak liggéey ngir wut lu mu jox boroom këram moo ko daa leel dadaa faxas sax ya ko daa muur moo ko daa jox mu naan mësul xalaata daw raxma daa gëm seytaane xëy ko bis te naa ko rax ma yow bàyyil ma waa waajile te ñëw fi man gore taar wi nga yor boroom balaa mënulaa yor ñëwal fi man ma jël la loo wax may joxe raxma raxma daa gëm déglul la rax ma wax keroog waa joo jële nga xam ne kii de daa gore am na ngërëm mu wax seytaane ni ko xanaa xamoo ne man ndigal ci laay wéye fu mu neexeek fu mu naxareek du tax ma dem sama taar mbaa alal mësul tax fa ma sëy jaamu yàlla ak wutuk ngërëm mooy li ma war raxma daa gëm muñ la jikkowoo ba yàlla wéral borom këram teggi nattu ba jëfe ndigal la saxoo ba borom këram gërëm ko doylu doylu la doxe ba mucc ci seytaane yërmande la amee woon rahma rahma daa gëm yërmande la amewoon woon rahma daa gëm. ginnaaw nag bu ñu seetaanee portrait boobu ñu jagleel soxna Rahma doonoon soxna sa yonent yàlla Ayub xam naa nag dañ ciy posé waat question suñu ñaari invité yi soxna Diarra Seck ak soxna Bintu Amar soxna Bintu mën nañoo tàmbalee ci yow ñu daal di nag ngeen wax ñu rek kàddu yi ngeen di yëkkati ginnaaw bu ñu seetaanee portrait bi nag daal di tàggatoo ak askan allah soññee na loolu ndax dëgg yàlla. soññee na lool sax te maam liñ nga ci li nga ciy gën a jàng mooy say jaamu yàlla la man vidéo bi tënk tënk lool laa ci kii say jaamu yàlla la du taar du am am du sax ay wér ak ay feeb maanaam ci naqar bànneex dangaa war a sayte jaamu yàlla soxna rax maanaam ci vidéo bi li ñu ko li koy leeralee nii jàngal boobu laa ci am waaye rawatina maanaam muñ muñ ak topp sa boroom kër te muñ ñu soxna su murit ndax vidéo am solo lool fi muy gën a soññee jawaab soxna Penda Diop bi soxna Penda Diop di laaj sëñ bi ab yóbbal maanaam moom soxna nan la war a melkaan sëñ bi loolu ko njëkk a soññ muñ bayit bi njëkk ci ak muñ la ko njëkk a maa ngi lay diggal nga wéy ci ak muñ ak jaamu yàlla waxaat ko tamit ne ko toppal sa borom kër bi nga xamante ni day jaamu yàlla neeñ sax am na benn benn jëm yu ma sa ci sëñ bi ne ko man de sama soxna dafa làqu ma bëgg na nga ñaana ko donte man sax gërëm naa ko sëñ bi ne ko yow ku la gërëm waa ji ne tekk daal di toog daal di noppi sëñ bi ne ko ba ñu wax loolu waa ji topp yàlla soxna soxnaam topp ko koo ko tax ñuy wax waaye lii ñu sadaani sànq yaakaar naa soxna si nii ku borom këram gërëm la ku yàlla gërëm la xanaa ñu jëm ci rajo ndax bëri na suñu génération bi ñu ko seetaan noonu ñu bëri ñi tas seen sëy tey maa ngi tudd ci kàddu sax dogal la waaye ñi ko def seen dinañ ko gën a wàññi fay na gën a wàññeeku soññee na lool soññee na lool sax. bu am solo nag. Mm-hmm. ci eh, suñu classe yi nga xamante ne moom dañoo doy waar soxna Mame Diarra eh, ñu di yëkkatiwaat ci portrait bi ñuy def eh, di soxna Rahma waaw daanaka soxna Bintu wax na lépp de mooy que ni am na solo lool te itam maanaam lim ciy jàngale daf fees dell ak ay jàngale ku ko teelu bu baax rek maanaam li jël li ñu ciy jëlee ay njëriñ dong lay doon te itam di ñaan suñu borom may ñu dégg ak topp rek. amin amiin yaa mhm. rabbi amiin amiin ñu ngi jaajëfal nag soxna yu baax xam naa nag seen kàddu yu mujj la ñuy daal di jël incha allah ci biir mhm. jotaay daal di joxante nag dox daje incha allah ci yeneen i jotaay ci biir ëttu soxna yi soxna. macha allah moom nag fi ñu ko yemale woon ci vidéo bi sax day mat sëkk day mat sëkk daal xëy na nag ci ñëwaat ci thème tey maanaam maanaam xam-xam nañ ci war a gën a góorgóorluwaat rek te ñu jàpp tamit li gën am solo jàpp ne du wees jàng du wees tey ki nga xamante ni mi ngi nekk ci biir këram di borom kër may profité ci occasion fa dama fay sant sama borom kër ni am seen doom seen kër tamit leen di nafaraatal maanaam daal wees te ñu xam ne maanaam ñun suñu suñu borom ñun jigéen suñu borom moo ñu bind ñoo xamante ni dañoo dañoo sikk lool boo déglu waseetu niswaan ni ñuy naan soxna la melokaanoo bu ci boolu xam-xam bu sell rek di xaw a yéeme ñu xam ne tamit fàttali tamit ne membre la ci benn société kon nañ gën a xam ngir maanaam ci wàllu médecine yeeg euh, professeur yeeg lu mu mënti doon xam-xamu àdduna tamit ñu jàppale ñi nga xam ne moo ñu bokk société maa ngi jégu nag c'est que vidéo bi dafa xaw a yéeme loolu wax dëgg yàlla moo tax kàddu yi xaw a jafee ñëw daal maa ngi jégul baax di sant ñëpp nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa moom ndeysaan lay demee wuti nag sama genre gi soxna soxna maam jaara ay waseykat yu mujj waaw li ñuy tàggatoo ci thème bi rek mooy que ne maanaam ñu delluwaat xam-xam ndax mosoo gis maanaam ku sàkku xam-xam jaarale ko ci yoon wi wax maanaam boole ko ay teggin ak jëf ju rafet ñu di ko toroxal loolu amul fenn kon maanaam sàkku gi nag métti na ndax suñ Tuubaa nee na jawharun la kon loo xamante ne la la cay eggale maanaam du doon lu yomb xiifal bëccëg a ngi ci maral guddee ngi ci tarbiyoo ngi ci topp nga ci waaye bis boo demee ba fas ko ba takk ko rek maanaam doo sonn fii doo sonn fële te itam am nañ ci ay royukaay yoo xamante ne nii ay image yoo xamante ne ñu contemporain la ñoo xamante ne nii ay descendant ñi fi nekkoon ne woon naa la sànq li woon démb du ay lépp kon dëgg la ndax buñ ñee xoolee tey ji exemple yi am mën nañoo misaal ci ne maanaam li ci kaas bu dee dëgg comme ni ñu koy waxee rek li ci baraada bi dëgg la ndax cas yi ñu am eh, fintoon nii ku mel ni soxna maam Marème bu sëñ Sow daara la yor te soxna la ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ngi ci biir Touba ñii ngi tasaaroo ci àdduna bi di jàngale lu nga xamante ne nii bul bul wàllu xam-xam de base bi ñuy wax rek ak leneen ak leneen eh, ngir fu ñu mën a dem mën faa nekk li nga xamante ne daal moom laay tëjee mooy que ne xam-xam li ñuy wax rek patrimoine commun la maanaam bi ngeen boo xamante ne yaakaar naa ñëpp ko bokk kon ku ci nekk da ngay wut loo xamante ne nag la ngay sàkk loo xamante ne moom nga àttan ak li nga xamante ne moom la suñu borom séddee maa ngi remercier waat bu baax a baax di jégluwaat mbokk téléspectateurs yëpp ci kàddu yi maasala ñu ngi jaajëfal bu baax moom soxna Diarra Seck nag euh, sant leen bu baax ñoom euh, soxna euh, Binta Amar jiite ak soxna Diarra Seck di suñuy naataango fii ci Almouridiya TV waaye nag tey ñu taxawee taxawaayu invité ñu bokk waxtaan ci jotaay bi ci ëttu soxna yi la nag tey nag ñu tànnoon benn thème bu am solo muy nag ràññeeku ko soxna yi ci sàkku xam-xam ngir jariñ askan wi loolu nag moo doon suñu thème tey wi ñu leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal jaajëfal nag équipe bi ñu bokkal liggéey bi yëpp Euh, jaajëfalit suñu kilifa yi nga xamante ni ñooy saytu liggéey bi ñu doore ko nag euh, ci suñu euh, fondateur Serigne atu Diagne daal di nag jaar ci directeur général Serigne Assane Mboup comité scientifique Baye Lamine Diouf ak sëñ Mourtada Seye comité scientifique bi yëpp ak équipe technique bi nga xamante ni ñooy jàpp ci liggéey bi yëpp ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ñu jaajëfal nag public bi nga xamante ni ñooy ànd ak ñun ci émission bi di ëttu soxna yi teew daal di nag teewi émission bi ñoo ngi leen di jëfal bu baax daal di jaajëfal it nag suñu imam Abdoul Ahad Niang teewal nag comité scientifique bu Almouridiyyah ñu leen di jox dox daje incha allah fii ak semaine ci beneen ëttu soxna yi. الذي لم يدرك كن فيكون لك خير خير رسول الانتخاب وبك فصرت خير